a jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyantoo njiitu bi nga doon amal sa diwaanu Sédhiou ay laaj ngi nii yoo xam ne aji bu sumaare moo la ko laaj journal bi di réew mi quotidien nee ko njiitu réew mi di président kay tontu ci laaj yi aji bu sumaare bi ko njëkk a laaj mooy président keroog bi ngay recevoir Marine Le Pen ca ba ndax da ko jox xaalis boo xam ne jege na ci huit milliards ci sunu koppar loolee ab laaj la beneen laaj bi nga xam ne moom la ci aji bu sumaare xam ne réew mi dafa ndóol ba maar la bi nga xam mooy da ngaa recevoir Marine Le ci sa turu yow en tant parti APR wala da nga ci turu njiitu réewum Sénégal yéen a kaay gi nee na beneen laaj bi ko aji bu sumaare mooy ndax aw ci yoonu aj li nga xam ne mooy élection présidentielle 2024 yi maanaam da ngaa aw ci yoonu dàq élection présidentielle 2024 yéen a kaay gi nee na laaj yi la ko aji bu sumaare laaj ak yeneen laaj yoo xam ne ma ngi ci biir journal bi yéen kaay gi de la point nee na jamono ji Hadjibou Soumaré di laajte njiitu réew mi di président Macky Sall ay laajte jamono jooje moom Macky Sall ma nga woon ci diwaanu Médina Gounass sa Dia président Macky Sall daan nay sàkku ci xalif général bu Médina Gounass ay ñaan yoo xam ne Sénégal dina ànd ko dala yéen kaay gi de Les Échos nee na xalif général bu Médina Gounass daan nay wax ne Macky Sall li mu def ci fukki at yi amul benn président boo xam ne mos na ko fay def yéen kaay gi di Direct News nee na ministre bi fi dénkoon ay jamono lu jëm ci wàllum affaires étrangères di ministre Mankeur Ndiaye ginnaaw sorti bu tàng jër bi nga xam ne defoon na ko fi jëmale ko ci nguur gi ci élection législative yi mooy kero bi ñu rejeté liste titulaire coalition Yewwi Askan Wi Mankeur Ndiaye ginnaaw sortem boobi ba léegi jamono ji kenn déggatu ko mu wax maanaam dafa noppi ci loo xam ne tey na xel lool journal bi nee na ginnaaw loolee tamit fukki fan ak benn ci weeru janvier maanaam 11 janvier président Macky Sall daan na koy recevoir ca palais ba amal ak moom audience boo xam ne bett nañu baree bare lan moo xew ca audience boobee moom la journal bi direct news xëy di bi nga xam ne am na ci réew mi mel ni tulleeg màlle kenn déggu si Mankeur Ndiaye mi nga xam ne jamono nekkoon na fi ministre bi ñu dénk wàllum affaires étrangères waaye tamit nekkoon fi secrétaire général Nations Unies République centrafricaine 2018 ba 2022 Mankeur Ndiaye lan la noppi lan moo waral noppi ki ndax président Macky Sall daf koo dig ab nomination boo xam ne ba léegi ni joxugu ko ko wala nag dafa jëlee ci audience ba loo xam ne dal na xelam yéen a gi de la li fi am ci scandale jëm ci wàllu milliard bëri na loola bërki demoo Ndiaye quatre-vingt-dix-huit milliards yoo xam ne ministère des transports moom la ñu koy laaj di Mansour Faye bugaan di ko ko laaj ba léegi andi guñu ci ay tontu ñu ne déete waaye Hadjibou Soumaré laaj Macky Sall ndax na ko da ngaa jox Marine Le Pen maanaam ay milliards yéen kaay gi di Sud Quotidien wax ci askanu Sénégal gi nga xam ne jamono ji maanaam ñoo ngi xaar li nga xam ne mooy ruusee ci pétrole ak gaz bi nga xam ne Sénégal amee na ko yéen kaay gi nee na lu toll ci sept cent jàpp huit cent milliards ne at mu jot Sénégal mën na koo am bu dee trente ans yi ko ci vingt mille milliards source a ñu xëy fekk fa maître Moussa Diop moom nag daat nay wax ne ñi nga xam ne ñooy waa PDS maanaam bu dee am na kenn koo xam ne moom la ñu war singale moom la ñu war a moom la ñu war a mere maanaam mooy Macky Sall ndax Aminata Touré lu jëm ci wàllum kër yi maanaam ministre bi ñu dénk wàllum yoon rek la woon lépp mën nañu jàpp ne Macky Sall la ñi nga xam ne ñooy waa coalition wàllu Sénégal ginnaaw élection législative yi ba léegi kenn déggule na loolee kàddu yi maître Moussa Diop la nee na jamono ji coalition Yewwi Askan Wi mën nañu wax ne amatu ndax kenn ku nekk jamono ji ma ngay wuti lu mu gi di réew mi ko ñu Guy Marius Sagna ak ñi nga xam ne moom la àndaloona samedi bi ñu génn ngir nag dem toogaanu ñaxtu ca buntu ambassade bu Tunisie bi nekk ci ñu tegoon leen loxo samedi dimanche démb la ñu leen bàyyi yéenekaay gi de Le Quotidien yor yora ñu xëy fekk fa Seydina Oumar Sy mi nga xam ne ay jamono nekkoon na ministre bi ñu dénk mbirum affaires étrangères ci Sénégal nee na élection présidentielle 2024 bu ñu fexe ba Ousmane Sonko bokku ci loolee mën naa indi ay jafe-jafe ci réew mii di Sénégal yéenekaay yoo xam ne ñoo kon seen bakkan ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk ñoom nag fas yéene nañoo jël mbir mi yóbbu ko fa mbax na doone benn maanaam ca kanamu CEDEAO yéenekaay gi di bés bi ñu xëy fekk fa Aji Mbergane Kanouté nee na lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat Macky Sall loolee demande sociale la te nee na élection présidentielle 2024 gisuma lu ci tere bokk Macky Sall kàddu yi Aji Mbergane Kanouté la journal bi de le mandat ñu xëy fekk fa Malick Gakou nee na mooy nekk juróomeelu président bu Sénégal maanaam élection présidentielle 2024 Malick Gakou bu grand parti nee daf koy gagné ci loo xam ne lu leer nañ lay doon am yéen kaay gi de Les Échos nee na en tout cas li am ba des sàll combat Sa Thiès ak rëg-rëg coow li bëri na ci loola waaye nag bu ñu waxantee dëgg li am ba des sàll mooy ñëpp gis nañu jël bi maanaam gis nañu quatre appuis bi xanaa ñi nga xam ne ñooy arbitre yi ñoom rek ñoo ko gisul la yéen kaay gi du sunu lamb nee na benn combat ñaari jël la loole la ñu gis ni ki démb ci dimanche ji diggante Sa Thiès ak ki nga xam ne mooy rëg-rëg Sa Thiès rako Balla Gaye bi nee na dina déposer recours ca CNG Moustapha Guèye nee na Sa Thiès moo daan Bekaay Mbaye nee na Sa moo daan